Euh, mon frère Mangi le nuyu bu baax di nuyu mbokki ties yep di nuyu le directeur général monsieur Omar Seye ah, di len wax ni vraiment ñew bi ngeen ñew seet si neex na ma trop et tay moom vraiment def ngeen li ngeen wara def ñu leen di remercier bu baax ci visite bi quoi. alors très bien bu ñuy ñëw rek euh, tay euh, démb bu ñuy wax agent de sécurité bon agence B, Mangi créée créé en 1996 le 31 octobre 1996 là ko commencé à Donc, donc, donc, donc. jusqu'à 99 commencé à récépisser pour réellement ouvrir euh, la société alors quand euh, boobu léegi yaa ngi liggéey ci wàllu sécurité nous bëri nga wax brancher parce que sécurité moom dafa yaatu. Mhm. alors sécurité yaatu il y' a plusieurs volets bon fi comme Kadior Action ñun euh, dañuy def gardiennage hmm? dañuy def dressage de chiens, dañuy def formation garde rapprochée et d'ailleurs ça, sax ñu ngi ci tànk une grande école de formation au métier de la sécurité professionnelle d'ailleurs amna diego yu am solo yuñ ci jot a def nani naa ni fii ak weer wala ñaari weer di ngeen dégg lu bess taala sécurité n'ak, mbir mu yaatoo yaatu la mbir mo xamni la nit mënul taxaw ni la maa ko jàng ba mu jeex tàkk mhm. da ngay ñëw bay ci sawar rek la mhm. ci xaj mhm. da ngay ñëw bay ci sawaar rek ba fa mu yam nga abale mais métier boo xam ni la métier bu noble la métier buy jëmale am réew kanam la parce que dëkk bu amul sécurité mënul dem nit bu amul jàmm mënul def dara donc loolu moo ñu poussé ñu ubbi agence bi yàlla natoo ñu aussi ñu bëgg ko mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. donc Ubiko euh, aussi pour la réinsertion des jeunes mhm. hein, pour la création d'emplois mhm. hein, pour lutter contre l'insécurité mhm. lutter contre le banditisme et autres etc donc c'est euh, ce tax euh, ñu ubbi bon di di ko yaatal hein, affaire

da préparer un contrat exemple société Gisle, la sécurité bëggoon a sécuriser sitam société am wala mu bëgg a sécuriser këram wala moom ci boppam mu bëgg garde rapproché ça dépend de lui mon moo wax modèle de service bi mu comme ça nga préparer ko genre contrat boobu bu fekkente ni dafa bëgg gardiennage nga defal ko contrat gardiennage bu fekkente ni dafa bëgg contrat protection rapprochée nga defal ko protection rapprochée donc après nga waxtaan ak moom dem ba ci moom ni ko yow sa kër gi lan nga ci bëgg am na ci ñoo xam ni sax danaan danaan la yow en tant que professionnel dama lay bàyyi nga conseiller ma wax ma fii ñaata agent moo ci doy bu ko defee nga conseiller ko xool les points sensibles fu élément war a nga noté ainsi de suite ainsi de suite après nga def ak mon euh, briefing expliquer que li nga jotté gis ci terrain bi alors à partir de là vous signez le contrat. alors très bien euh, yow professionnel de machallah mais est-ce que xaj que doy na euh, gardien ci kër wala ci entreprise. waaw xam nga gardiennage dafa am gardiennage avec chien là c'est des chiens dressés qui gardent donc un chien dressé à partir de 100 mètres, exemple, il peut sentir quelque chose par l'odorat et automatiquement il alerte son maître. Voilà, automatiquement, le maître va savoir qu'il y a quelque chose qui se passe à partir du chien. Hmm? Hmm. Au cours des faits, il va commencer juste à observer ou faire les 100 pas pour voir ce que le chien a vu hmm. ou bien ce que le chien a flairé. Donc, mon gardiennage avec chien, am solo parce que xaj dafa mën loo xam ni nit mënu ko même avec un chien très bien dressé vous pouvez le mettre dans une maison fermée avec sa nourriture et de l'eau nga jox l'ordre, ordre exemple que personne ne rentre kenn du dugg même si un chien agressif sans ordre sax il peut il peut faire mais li ci am solo mooy bu fekkente ni foofu amul nit li tax dressage bi am ci solo mooy exemple man nga ko poison mm-hmm. boo peut-être dans deux heures de temps il va mourir ou mm-hmm. bien dans une heure de temps etc. Mm-hmm. ou bien dans 24 heures il va partir hmm? là si c'est un chien dressé tu lui jettes quelque chose un abat il ne touche pas au contraire il va aboyer encore pour, pour faire des alertes sans manger manger là-bas très bien alors mu mel ni foofu euh, leer nañ ci wàllu euh, rek li nga xam ne gardiennage yi mais tey euh, bu ñuy wax ci wàllu protection rapprochée parce que mm-hmm. tey dañuy gis ay cérémonie yu bëri di am. Mm-hmm. nga gis seen autorité yu si dem soit ay autorité religieuse wala autorité politique wala administrative naam sax police ak gendarmerie dañ leen di encadré mais dañuy gis parallèlement ay agence privée yoo xam ne dañ leen di sollicité pour ñu ñëw ci li mel li ni mel démb naka nga koy liggéeyee ak ku ko bëggoon aussi fan lay jaar waaw euh, waxat nga mon frère lu am solo maanaam protection rapprochée des autorités politiques lu am solo mi ngi noonu euh, loo xam ni la d'abord dama naan balaa mu ci dugg lu ma yàgg la mm-hmm. yàlla baax sax indi leen fi mm-hmm. au moins ma mën ko wax mm-hmm dafa doon loo xam ni souvent bu fekkente ni liggéey bi nga xam ni protection rapprochée ñu leen ni woowee les gardes corps ñoom ñooy sécuriser autorité politique yi ñoom seen yoon nekkul ci manifestation bi maanaam lay xew la autorité ma di wax tous tout leur problème est que l'autorité soit en sécurité n'est-ce pas c'est-à-dire il faut être professionnel pour le faire mais malheureusement malheureusement te dama de damay occasion les autorités politiques les chefs de parti souvent ñom ñoy indi ñom ñoy créer insécurité bi. comment ça. très bien merci ñom ñoo koy créer parce que xamuñu. xamuñu parfois peut-être mën am négligence lay doon ci écurie yi la ñuy dem duñu dem ci professionnel yi. recruter ay mbeur recruter ay mbeur mbeur bi la xam nervi la bu nerf yi tàngee rek mu déconné alors peut-être parfois day bëgg a wan patron bi que ni moom guerrier la ci la musiba bu bëri nag di amee parce que danaan autorité bi mi ngi may xool xaaral ma xataraayu simi sama jeget sànni dënn bu rëy fekk c'est pas ça autorité kenn mënul ànd ak moom di xeex mais si vous autorité xex di xex feulé mhm. autorité ba mën ko fekk mhm. Mhm. c'est formellement interdit garder corps en ak autorité di parce que si toutefois que ngay xex rek autorité en parce que mën nañ ko infiltrer jam ko ñu ko wala dara ouverture

ils peuvent simuler. Maintenant, vous faites qu'un c'est des gardes corps armés, ils peuvent peut-être tirer en l'air, De formation, gagner daw et écarter ou daw. c'est possible, du mais rawale autorité Parce que c'est le but recherché, moi, autorité bi, mouch. bu ces manifestations aussi nous ñu xool gis ni fii buñ fi xeex bu métti mën na faa am nanu def demi tour wala ñu jéem a contourner wala ñu jéem a def benn technique boo xam peut-être ñooñu dañuy écarter ñoom ñu dem seen yoon. Mm-hmm. y en a plusieurs sortes de techniques. Mm-hmm. n'est-ce pas mm-hmm. mais garde corps du xeex. non c'est des nervis ñooñu ngay gis ñu ne nii filmer ñuy tiirante tër kii bu dóoree kee dóor. c'est des nervis. c'est des nervis armés en PA mais ce n'est pas des, gardes corps, ce n'est pas des professionnels. Donc, l'autorité politique vit en danger. Bon, parce que nous avons sécurité. Mm-hmm. Peut-être que nous savons où nous sommes. Qui écrit là nous Bon, je vais vous donner un exemple. Si nous avons demee ci benn écurie jël fa sécurité. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm réew mi dem ci écurie sécurité mm-hmm. le parti de Sonko dem ci beneen écurie jël sécurité mm-hmm. ainsi de suite ainsi de suite mm-hmm. bu qui tasee bu ñaari parti tesee kii war a romb nii kii war a romb ay ñëw taxaw ci kanam wala xam fi jaasi nekk ci oto bi bu paf sa mais rayante moo fay am rayante boobu laay wax nag autorité bi mën na cee mais bu fekkente des professionnels Qui est professionnels qui yor kii ay professionnels la yor ngay ak sa cortège kii di ñëw ak cortège mais ku ci sécuriser sa cortège dañuy romanté facilement. no problème du am. autorité yi sax bu leen neexee xam nga ñoom souvent ils n'ont pas de problème. Mhm. toujours c'est les nervis mhm. mais ñoom entre eux. y a aucun problème. Mhm. dañuy déggante téléphone dañuy defante seen i affaire xam nga même bu nu xuloo dañuy juboowaat. yéen xam ngeen yéen a gën a xam loolu. donc ñoom mën nañoo génn sax nuyoo. tàllante ku nekk tàllal sa morom loxo ku nekk dox sa dox nga dem xeexi kur ci nekk li la yàlla wërsëgal nga xam ni loolu loolu nga am donc métier bu complexe la te métier boo xam ni loo aussi toujours sa benn tànk ngi ci kaso bi sa beneen tànk ngi ci biti. très bien mm-hmm. li tax loolu am parce que xam nga mën ngeen yi def manifestation exemple meeting en tant que opposant mm-hmm ngeen mitin les militants du parti qui est au pouvoir bëgg ñoo ñëw tas mitin bi bon peut-être ngeen xaw fa dóor nit le parti qui est au pouvoir peut am ay nandité yoo xam ne xam nañu yoon yoo ñu ne ko allez porte plainte amul droit dóor la voyez donc se porter plainte autorité mën na woote téléphone ni bon il faut le foutre dedans pourquoi mu koy da ngay toog ba caag rek ñu di la convocation boo ñëwee ñu teel a en garde xam nga kii wax ay wax yu kenn xamul doo xam sax nu mu demee. da xool nii rek ñu naan la ay est-ce que yaa ko dóor rek dugg na fii génn na fële nga boo nee kii xamuma ko du la ci génnee. dan lay téye. Hmm? donc mo te dafa complexe. mën nga ci def erreur dem kaso. or que boo jàppee nit mën nga ko bañ a dóor Euh, mais nga maîtriser ko automatiquement yóbbu police def sa déclaration wax li mu doon def da doon perturbé. Mhm. perturbateur da nga maîtriser yóbbu ko à la police. Mhm. bu ngeen amé temps am ko ko jël yóbbu ko avec un véhicule déposer ko au niveau de la police ñu jox leen seen numéro de dépôt. et puis ngeen continuer sen sen sen liguey mom mhm. ñu bayiko fofu ci kasso bi. peut-être bo manifestation bi jeex. après mo xam nu muy def police ok super Alors, Thiès, il y a na alors euh, Thiès xam nañu euh, c'est une ville très politique euh, parce que gis nañu ñu bëri sax de ngay gis fatigue. dëkk Fatick ñëw une ci biir Thiès di def activité wala meeting wala cérémonie ñi ni mel pour couvrir naka ngeen di jànkonte pour rek sécuriser bon moi, li ma la wax sànq mbir mi c'est une affaire professionnelle.

amul Andal, la andal c'est pas notre problème nous sommes des professionnels. le service. et d'ailleurs ça, sax moy sécurité parce que si des si j'ai des éléments yo, si j'ai signé exemple un contrat avec euh, non un contrat avec euh, Réumi, un contrat avec. Sonko je ne sais pas Tala Sila aju Hadjibou Soumaré donc ñaari cortège bu nu santé? un c'est des professionnels deux sont tous mes éléments sont tous euh, mes éléments hein. donc dans ce cas déjà éléments yi donné xamante facilement ku les lay dem sa

avec le PDS, élection 2012, avec Chien, protection rapprochée avec Chien. Et khadi autorité Bindon sécurisée, euh, Santé, de Moustapha Niass, bi de ti ñoro Kër Djabel. bi Ablaye Wade di en hélico mhm. Hein? Et parce que, cependant, Moustapha Agnès donné trop vous mos tu tous les problèmes du monde mais ñun sommes ñu avec le professionnalisme que nous avons il y a le def nous fa sutura avec les chiens déjà bi ne cëpp danoo impressionné donc bi pa mm-hmm. l'ancien président maître Ablawad, nous mu d'elle, mais bi ñu xaj yi ñu yor ñoo doon ub ñoo ñu doon ubbil donc on lui donnait l'ordre d'aboyer wow wow gars daw rapidement tim baa ngi ci gannaaw c'est-à-dire autorité bi ak garde corps yi ko war ñi ngi ci gannaaw maître chien yi jiitu automatiquement dem nan ba ci Ablaye Wade pas bi di laajte mais comment fu xaj yi jóge keroog autorité bi euh, j'ai oublié son nom je ne sais pas c'est quel ministre encore dafa kontaan. content bi ma fait ba 000 dafa parce que moment où suis pas a renforcé en argent. de beaucoup renforcé renforcer la euh, campagne un peu suis te aussi c'était pas facile. donc avec l'aide de Dieu. dem chien taxaw waxtaan ak moom ba doyal bon vraiment garde corps ami j'ai jeune apprécié voilà quoi. Hmm? très bien. donc hmm, hmm. bon deuxième chose aussi. xam nga li tax euh, liggéey ak professionnel baax. boo ñëwee nga ànd ak sa autorité nga fekk foofu les éléments. Euh, du jeune ou les éléments de la BIP là en tant que professionnel. vous avez en tête que ni man je suis privé. je ne suis pas ni policier ni gendarme. donc bon vous avez leen fa da nga jox nga mais un il n'a rien compris day a rek <laughs> que match, c'est des problèmes. Moi, ne parfois pas si ay manifestation élément GIE jeune wala bip ñëw maîtriser un garde corps yóbbu beaucoup mais parce que c'est normal il est indiscipliné parfois c'est des indisciplinés Ils ñëw fekk la yow yo, yow xam nga un élément du ou un élément de la BIP comment il est mais bon, il di ko jaay dund bu de maîtriser de les maîtriser maîtrise bu grave sax yóbbu la

d'ailleurs sunu doole yi li ci ëpp sax la. Ah, bon nous aussi il faut que ma xaw ko leeral tuuti rek mm-hmm. hmm? parce que gambi vraiment ñun bi ñu fofu d'être euh, def une publicité ci biir semaine bi. Mm-hmm. ci biir semaine bi on a eu beaucoup de clients. Mm-hmm. sécurité Fille de gën bon c'est la volonté de Dieu quoi booy xool Thiès aw ma fi sax ay affaire yu tax maanaam hmm? parce que boo xoolee boo defee recensement bi nii doo gis élément Kajoor action yu en ville là doo ñu ay cinq personnes ngay gis bon moi toujours je dis que nii noonu la ko yàlla bëggee hmm, noonu la ko le bëggee mais peut-être avec Cambi. Euh, avec le dressage et la vente des chiots yalla nga ñu ci dimbali motax mani duma daw Gambie moo la ma am Gambi chat la amu mako ties mais du tax ma daw parce que man kadior kadior la dama bëgg sama rew dina jël nak samay moy yi nga xamni jël gambi la ko jëlé ñeu investir ko fi à ties parce que kenn gënuma dëkk ci dëkk bi dépendre ma ci kenn aucune autorité kenn dimbaliwu ma man maay dem ak samay propre moyen gëm yàlla ci liggéey moo tax ma ni du ma daw c'est dur mais du ma daw dinaa fi taxawal benn centre de formation au métier de la sécurité professionnelle si c'est acquis am na yeneen bagage yoo xam ne aussi bëgg naa ko taxawal parce que l'expérience est là. l'expérience est là depuis 96 macha allah.

yàgg nañ ci xaj yi xam nañ leen xam nañ race yi xam nañu race bu ci nekk sa caractère nu mu mel ban genre force nga am ban genre intelligence nga am ban genre liggéey nga war a gën a mën parce que xaj yi dañoo mënante ci seen biir du dëgg mm. euh, ba tax na aussi sunu xaj yi aussi yi niy liggéeyal aussi nous avons un vétérinaire je croyais que ça xam nga docteur Pape Ali c'est notre ah bon si nous avons quelque chose mon mot gérer mm. quoi c'est quelqu'un je le salue au passage il est très bien mm. il est ouvert il est bien il n'y a aucun problème et puis il a de l'expérience pour moi c'est le meilleur voilà très modeste voilà merci mm. ah. voilà donc euh,

c'est des bergers allemands ou des Rottweiler ou Pitbull, Doberman, ainsi de suite. Amane euh, peine bini def ci ñom bu ñu ko ci peut-être le minimum parce que man j'ai eu à dresser un bâtard pour voir l'expérience mais xawna a ko réussir quoi parce que première phase bi réussir n'a ak mm-hmm xam comme nit la rek ah. mm-hmm. man dafa am bon essayer de savoir un peu parce que mm-hmm. xaj-xaj la. Mm-hmm. xëy am. ak ni waral intelligence. egg yenn niveau yi. mais xam nga ñun sunu c'est des chiens ah, galeux de nous vacciné ou de nous un jour les sapeurs-pompiers de Thiès la téléphone Ils ce numéro téléphone mais le bi un chien très agressif xaj bi mi man ba mi ngi ci sama yi di d'ailleurs sax dama ko en Gambie mais la mais xaj bi de bi mu direction des douanes. bi nekkoon fii. bi mu non je ne sais pas d'après les explications un douanier bu demoon mon jënd yàpp. dibi doon ñëw alors dem këf c'est un chien agressif dem di këf mbuus mi xam naa waa ji bif mhm. rek xaj bi song ko mat ko ba waa ji daanu mu taxaw foofu di lek yap bi xam naa ñu wolé les pompier vers les environs de 22 h ils m'ont appelé ma ñëw bi mu ñew nak fekk ñu mbal xaj bi man dugal leen ci service bi ñëw ba ci niche moy mooy néegu xaj yi mhm. mhm. maa wax leen ñu wané ci un pick-up ko quoi bi ma jël ko ak bi dindi un peu bi ba japp collier bi sama dindi ki bi xaw ko étranger ak euh, collier bi bi ko nañ commencé def familiarisation ak après Madame commissariat def déclaration bi au cas où borom su mais machallah on travaille avec mm-hmm.

Euh, merci xam nga mooy m'explique euh, ma expliqué sécurité mon doy bon à mon état mi ngi def euh, mais ken mounou a def à 100% pour cent waral société de gardiennage aussi am solo il euh, y a des polices de proximité. C'est très mm. important. Nous encore vu vers les années 2007 mm. avec Weekend Magazine quoi avec euh, un journaliste. Mm. bon voilà donc police euh, proximité amna solo Amna solo mais xam nga aussi fait un moins. moins. autrement dit carburant véhicule personnel matériel logistique moy mooy police loolu mom il faut que ñu wax ko police mënul liggéey sans carburant police mënul liggéey sans effectif ay nit dong lañ comme ñun dégg police mënul liggéey sans auto mënoo topp mbedd mi di dox la ngay patrouille donc yooyu il faut que mu mat ta xam nga ñom aussi ils sont commandés amna ñoo yo xamni dañuy gore rek ba dee quoi mais duñ ko mën mais il faut que ñu dimbali leen wutal leen ay auto wutal leen des éléments bien bâtis ay professionnels bien formés yo xamni c'est rare sax nga dégg yenn problème yi mais xam nga yow si tu n'as pas les moyens tu es fatigué bon voilà ainsi de suite moo tax parfois aussi da nga dégg yenn bavure yi di am parce que peut-être niveau bi mu lay fekk la n'est-ce pas mm-hmm. mais en tout cas vous euh, fekkente a patrouille mi ngi am pendant la nuit mm-hmm. guddi vous ñu fay carburant mm-hmm. je vous assure problème d'homme. et puis euh, je ne sais pas xam nga état comprendre mais man en tant que gérant d'agence de sécurité Euh, je vais m'adresser au gouverneur. L'État. Parce que moi, le président Woul, nommé que gouverneur Thiès. Les maires, ñom nyom xex ba maire pour bëgg maires. maire. Donc dama nan ku ci nek na nga def la nous, les agences privées, de sécurité privée, nous considérons nous sommes mm-hmm. C'est ça la vérité. Mm-hmm. parce que nous sommes agents yi ñooy fanaan ci mbedd yi ba fajar di gis lu pendant des années ces mm-hmm. agents di qui ci mbedd yi nous bah, mom la wolof naan guddi dafa am borom guddi lu ne moy xew et lu bëri li xew nak agent de sécurité ñu ci tek sen seen bu ñuy rendre ñu compte ñu leen def leen ni ak ni ak ni si ça nous dépasse peut-être un peu ci la soog a dem peut-être rendre compte la police mais su ma sañoon chaque mois exemple premier lundi de chaque fin du mois ñu def benn réunion de sécurité gouverneur président. parce que c'est le gouverneur de la région il y d'autres d'autres affaires politiques, affaires de responsabilité là. oui parce que nous, nous gérer ni gérer sécurité euh, publique bi la police la gendarmerie la sécurité des pièces, nous sommes des appuis

Mhm. la police la gendarmerie mm -hmm. même le service d'hygiène mhm. ñu koy rendra le compte sur l'hygiène mhm. de, de, de la ville et autres ou autres n'est-ce pas donc muy mën di jël ay mesures muy mën di collaborer ak maire yi yow ñaata nga mën a yow ñaata nga mën a yow ñaata nga mën a même su fekkente ni sax ay éléments dafa manqué nous ni vous les agences de sécurité privée ku ce qui ñaat lan la mën mais exemple ma ni man Kajoor Action un véhicule pick-up nit da ngay bëgg sa réew chaque semaine Je naa participer quatre fois ou trois fois avec des chiens Tu patrouilles avec les chiens accompagné avec la police

n'est-ce pas bu nous daral bi Presta dem West Point ku ci nga am sa contribution boy indi pour la sécurité de la ville parce que nit mooy li ma dox sànq mënoon na maa dem toogi Gambie lii affaire bi file, mais bugguma d'accord mais je suis là je vais continuer à travailler pour le pour Thiès pour le Sénégal

chaque réunion de sécurité man damay def chaque samedi waxuma la chaque mois mais chaque samedi damay def réunion de sécurité avec mes superviseurs ici nee naa leen li ma gis muy ñëw ça mënuñu ko jeexal du police du gendarmerie kenn ne ko jeexal ñépp mm-hmm. mm-hmm. mais mon cher pétrole baa ci yoon bi di ñëw. gaz baangi ci yoon bi di ñëw. Mm-hmm. te daf ci am loo xam ni gendarmerie du ko sécuriser police du ko sécuriser domaine domaine secteur privé la. loolu c'est pour ñun ñii. te bunu ko kenn yàqal. Mm-hmm. nan ñu bàyyi rek ñu jël suñu wàll. Mm-hmm. du dëgg donc il faut que ñu préparer wu c'est pas pour zéro mani ni demuma Gàmbi toog damay ubbi un centre de formation.

gaz or diamant pas un problème mm-hmm. dëkk y a am guerre guerre guerre civile Tout le monde voit la Libye mm-hmm. nanu maytu l'eau daal mm-hmm. dëkk bu am pétrole ou le gaz dinañ y ba a pas pas c'est c'est toujours l'Europe nous, sommes en tant que peut-être président dem xam sa opposant opposant bi ni am na gannaaw am le président aussi il est avec la France gën a am fit ku nekk di déglu sa gannaaw ba mbëkkante ñu profito ñëw ak seen affaire bagage dóor affaire yi mu daanu yóbbu gis nañ li xew ko di mënul expliquer mais defal na ñun Sénégal parce que ay nit ñoo ay nit yu intelligent ñoo fi nekk. loolu moom vraiment kontaan naa ci trop. parce que fii dof du fi nekk président. loolu moom yàlla defal ñu defal nañu ko. que ça soit Macky Sall boo xoolee ñiy xëccoo nguur gi ñépp ñoom ñoom ñépp kenn dofu ci. da ngay nekk la meilleur rek yàlla dimbali la nga jël ndam li mais du sa ngóora sa dara. yalla mo lay dimbali fal la donc au retour aussi defal li tax yalla fal la yalla nak nit ñi defal sutura xex amagu fi jàmm ak salaam lu mu rew mi miti miti nit ñangi ngi ñu majeure partie quoi ñi ngi dal sante yalla amna nu jàmm kenn te réewunoo jàmm yàlla kenn ta fi sa bop ay yu ken xamul hein yalla nit ñi suturaal donc sutura bobu nanu fexé be buñ ko yàq important vraiment monsieur Guèye émission bi am na solo parce que ni ci waxtaan tey xam naa ne njëriñu askan yëpp lay doon alors euh, très bien xam naa dañuy wax rek adresse wu Kadior Action mu ngi fii ci quartier dixième en face Croix-Rouge mu mel ni yow yor nga adresse complète bi ñu bëgg adresse complète bi pour bëgg ko ak yéen euh, ci seen liggéey ak yi mel merci bon Kadior Action fii la nekk au dixième en face Croix-Rouge euh, téléphone 33 euh,

dafa an liggéeyu professionnel mais dama ci xam nga li tax autorité ci déglu débat bi dina ni attention donc nervi yi indi problème dina formation pour être professionnel parce que nervi bu faire formation parce que formation bi dafa am solo. lavage de cerveau lan lay defal. D'abord, abord ba pare ni la hee bul dof li nga jàpp ci sa bopp bi amu amul dégluñu nga tey bin bin li nu bëgg ci comportement parce que garde-corps dafa dafa xaw a doy waar daal da ngay doo bëri wax da ngay set sa gémmiñ du xasaw doo laal ay parfum yu fort di di étouffer autorité bi ci biir oto bi yooyu yëpp dafa am solo doo sol ay kawas yu camembert di fat te souvent ñaare ay borom barke lan soit danoo diabète wala danoo asthme. c'est des asthmatiques ou bien c'est des diabétiques. souvent très souvent amul ku ci à 100 pour cent. c'est très rare nga gis ko. donc un un asthmatique nga nga koy bëgg a rey. am doole yooyu bon ci baa day étouffé. am naa sax suñu prochaine émission dinañ mën a indi yenn technique de, de démonstration incha allah bu ngeen amaté occasion ñëw fii. Mm-hmm. Euh, dinañ leen defal euh, démonstration garde rapprochée. Mm-hmm. démonstration intervention avec chien. Mm-hmm. defal leen démonstration yu doy waar. yoo xam ni xam naa ni moom bu jaaree ci seen site bi moom. macha allah merci beaucoup monsieur Guèye merci merci merci merci merci.